man dama tiitati man tiit naa ci mim réewoo waaroo ëppale mbaaraw kenn fii moom jóg naa dem ci sëriñ gi yàq la xiif naa mbaa musul foog ni yowa yàlla buy taaw ngay fo saa doole moo ci jeex noppi na ba pare di yëngal maa koy yëngal புல்லாமனே அவையங்கள் Kina ya? Sama nyuku? Wow. Sama? Sama biyan. Yang cijam? Ah, hindi kay. Kung yang tupon sama ginaw?